صلاة الله ثم السلام فبرهام جد ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara fi ngeen gis ñu taxaw ni euh, ñu ngi koy tuddee Daaru Miraya nekk fii ci commune de daara ji nag nekk daara boo xamte te ne daara Cheikh Abdoul Baqi la di ci doom ci Cheikh Hassan Ah, barab bi ngeen di gis na mu nekk ci toolam mi nga xam te ne ci daara ji la bokk mu nekk ci toolu Marenga. nga woon nañ ko liggéey presque mën na trois ans ak léegi ci ñetti at léegi lañ ko tàmbalee di nañoo ko diina par doom su demee ba commencé màgg nag bu ñu tollee ci ndigi dañ koy daal di dagg nga xam te ne dañ koy yóbbu traité ko nettoyé ko defaraat ko def ko poudre machine bi nga xam te moom la ñuy def poudre bi mu ngi ci biir ndax poudre lañ koy de transformé après daal di ko jaay léegi daanaka bañ ko tàmbali di ko def léegi man nañ trois ans si trois ans si ñetti at la ak léegi. waaw formation bi ku ñu ko defaloon mu ngi tudd benn paala woon mu ngi dekk fii nii ngaan fii côté Thiop fak daf noo ñëw fii fekk ñu fii si biir daara ji dañ ko defar formation. waaw ci la ñu xam te ne man nag mooy xawaaye nag man technicien la si biir tool bi waaw en plus tamit ñu ñooy transformé tamit xob bi suñ ko dindee ba pare. waaw goutte à goutte ah. waaw waa ci noor bi suñ jotee goutte à bi moom la ñuy utiliser parce que yaa ngi gis goutte à goutte yi nga xam ne moom leen laal ci biir tool bi moom la ñuy arroser suñ demee ba fi nga xam ne tooyut wala goutte ak bi fat na dañuy jël siwo daal di tànk ndox bi ñëw sotti ci ñu jël ndox bi sotti moom la ñuy euh, arroser moom la ñuy roosee ak mbalka yi nga xam ne moom ngay gis ci digg tool bi foo xamante ne amut wala foo xamante ne tooy dañuy jàll daal di siwo tànk ndox bi dem sotti si bi nga xamante ne moom mooy fu amut ndox bi nawet bu jotee nag parce que nawet bi jotee ndox bi def daal di màgg day daal màggal boppam ndox bi maanaam ndox bi ndoxu acide lay doon du bokk ak ndox bi nga xamante ne moom ko dafay màgg ba nga xamante ne sax boo ñëwee nawet doo xàmmee tool bi ak li nga xamante ne propre ak nawet bi waaye nag nawet bi dañuy arrêté liggéey bi parce que doo am par rapport noor bi parce que dootul am li nga bëgg ndax ndox bi su màggee euh, xob bi su màggee tuuti rek da ngay am xob yu zone te xob yu zone yi warut fii bokk wala xob yi yoo xam te ne commencé ñëw euh, wow soxluñ ko ñun naturel bi lañuy soxla ak bio bi ndax naturel 100 pour cent bio lañ koy liggéey amul chimie benn yoon defuñ ci engrais defuñ ci dara xobu niima moom lañ koy roosee moom moom la ñu koy produire moom la ñuy dindi bépp attaque bu nga xam ne am na ko wala laaj ak kaani guwaana moom lañ moom mooy tos moom lañ kii nii moom lañ koy kii moom lañ koy produire mooy doon engrais bi nga xam te moom lañ koy def moom lañ koy aaree. moo xam te des fois am na attaque nag fan yi nga xam ne am na si moom lañ jël soble bi eh, kiini ni bi eh, laaj bi ak eh, kii ni laaj laaj bi ak kaane guwaana bi moom la ñuy boole. ak xoobu nii mu nga xamante ne dañ koy weer ba moo def ko poudre moom dañ koy pomper nga xamante ne loolu yëpp daal di deñ mm. attaque waaw jàngat bu nga xamante ne moom ko daal moom moo koy dindi waaye nag duñ si def engrais duñ ci def produit chimique nga xamante ne daf ko yàq parce que 100 pour cent bio la. Euh, heure boo gisee ñu kii ñu dagg ko rek dans 15 jours fekkee ne mu ngi am ndox comme ni mu war amee ndox ndax à chaque fois nag dañuy manqué ndox lu baree bëri. waaye nag sëriñ bi nga xam ne moom mooy Boronte nekk euh, président bi moom muy def à chaque fois nu mu def parce que gas na fi ay forage ten yu neex nga xam te ne waaw waa forage nga xam te ne moom moo fi am léegi nag moom si moom lañ si lañ koy roosee waaye nag suñ ko heure bu ko coupé dagg ko daa 15 jours da ngay gis mu jébbiwaat rafetuwaat comme ni mu nekkee woon wala comme ni ko bëggee chaque 15 jours daal dañ doon dagg nga xam man exploitation nga xam te ne waa récolte nga xam te ne moom koy dagg waaw suñ ko retaane unité baa ngi ne daa euh, gauze boo fi jógee foofu nga jëm nga xam ne suñ ko daggee foofu lañ koy jëm balañ koy yóbbu ci euh, unité bi dañ koy teg witti ko ba mu set dindi ko nettoyé ko ba mu set ndax fii amut aar dara aarul ko dara tiimul ko fii ndax lépp poussière bu nekk dafay ñëw daal kaw suñ ko dindee dañ koy witti ba mu set ndax am na bante yoo xam te ne waruñ ci ànd ak poudre bi ndax poudre bi nga bëgg ak qualité bi nga bëgg foo nga nettoyé ko ba mu set soo ko dindee nga dugal ko ci bàq bi nga xam ne moo nekk ci biir unité bi foofu lañ koy raxasee dañ koy raxas deux fois dañ koy jëkk raxas beneen balka bi boo ko ne nga di yóbbu ko ci deuxième kii ne lavage bi nga kii ni nga raxas ko foofu bu setee nga daal di ko diine foofu di ko weer ci grillage bi moom duñ ko weer ci naaj waruta naaj waru koo tiim lampe waru koo tiim ndax bio la ñu wax te bio moom dafa war a euh, nekk à cent pour cent qualité waaw da yemuñ ci euh, bay ñebedaay bi c'est même maraîchage yi ñu koy def sa gannaaw nga xam te ne moom nga maanaam duy <laughs> diir dans fekkee ñebedaay bi la moom fekkee ñu ngi am ndox comme na ñu ngi roose moom chaque 15 jours dañuy liggéey liggéey bi du taxaw fekkee na euh, agriculture la mooy maraîchage bi nga xam te ne moom moo nekk sa gannaaw à chaque fois dañuy liggéey parce que soo gëstoo rek di nga gis nga xam te ne moom mooy kaane salade bi chaque 15 jours ñoom dañuy witti chaque 15 jours dañ koy dagg ndongo daara yi nga xam ne moom ñoom ngay gis si fii daara ji lañ nekk fii la ñu jàng presque toll nañu lim lu tolloo 400 personnes yi nga xam te ne fii la ñu yeewoo kenn yelewaanut kenn euh, demul fenn fii la ñuy jàngee fii la ñuy dem parce que sangoon nañuy génn dem def sport suñ paree daal di si même jeunes yi ñoom ñëpp sëriñ moo leen dundal même jeunes yooyu nga xam te ne moom ngay gis ñoom ñooy liggéey ci biir tool bi sëriñ mi dafa wax ne man du ma yar xale boo xam ne day jàng yem ci jàng ba pare su pare dem samp daara même nii man di tàllal loxo wala di yëla wan wala di yëla wan xale déedéet moom képp koo xam te ne yaa ngi jàng dem nga ba tari alquran ñu dugal la école sag ngoon su amuloo def rek ci tool bi fii na am na loo fi def ndax tool bi du lii kese am na leneen yeneen hectares yi nga xam ne moo nekk ci euh, gannaaw euh, kër ga fële lu tolloo cinq hectares yoo xam ne mu ko bàyyi foofu élevage yaa ngi foofu euh, xam te ne jën yi nga xam ne moom la ñuy yar yëpp a ngi fii si biir euh, kër gi nga xam te ne waaw mooy nga xam ne moom ngay gis fee sa euh, sa gannaaw fee waaw mm-hmm. eh, waaw yu jën waaw si napp jën waaw waaw ndax kii wallaay daa kilifa yi ci boppam foog naa ba ngay ñëw daje nga moom moom mu ngi def sport moom sport bi moom moo ci jiitu ndax moom ku bëgg sport la soo ko fekkee si daara des fois ngay daje ak moom daanaka daara ji daara ji ak Medina daanaka mën na 3 kilomètres daf koy dox su doxee tey suba ëllëg suy ñib si waat tamit daf koy dox moo tax def ku fonk sport la dafa dafa wax ne sport dafa bokk ci doomu aadama moo tax jeunes yi ngay gis yëpp ñoom ñëpp dañuy gont daal di sport parce que après 17 heures dañuy wàcc daara dootuñu def dara dañuy dem defi sport ñib si fii mooy mooy unité bi nga xam te ne moom la ñuy def transformation bi mooy comme moringa am nga xam te ne moom nga doon gis sànq nga xam te ne foofu lañ koy récolter foofu lañ koy bàyyee ndax fu mu nekk amul sécurité euh, poussière def ci dal leneen ak leneen def ci am buñ ko fa diinee dañuy ñëw euh, suñ ko récolter ba pare dañ koy indi euh, witti ko ndax parce que am na loo xamante ne war nañ ci dem war am na xamante ne war ci ndax 100 pour cent bio moo xamante ne moom lañ transformé fii lañ koy indi buñ koy indee mbalka baa ngi ne ci gannaaw nga xamante ne moom ngay gis deux phases la mbalka bu weex bi deux phases la dañ koy jëkk raxas benn bi dindi ko raxas ko ci beneen mbalka bi mooy xob yi léegi nag koy indi fii lañ koy weer nga xamante ne moom mooy armignon yi nga xamante ne moom nga fii gis nii lépp armignon la fii lañ koy weer waaw suñ ko raxasee ba mu set nettoyé ko ba mu set grillage waaw grillage la nga xam ne ndox bi dafay jàll te tamit en plus day gaaw wokk li ngay gis ne ne foyer la four la mu nga xam te ne suñu fekkee ne bëgg nañoo am nañ commande yu rëy mun nañ ko foo liggéeyee dugal ko fa nga xam ne waaw nga xam te tey ko tàngoor bi jàpp nga xam te dafay gaaw wow waaw ci kër lañ koy def lépp ci kër la même suñu koy indoon tey suñu koy indoon ba di ko weer fii lampe bi yëpp dañ koy fay nga xam te ne nag lépp dara du ko tiim maam dax lampe bi def ciy joué maam day jàpp xob yi waaw dafa waa solaire def ciy jàpp parce que toujours dañuy bàyyi xel li nga xam te ne waaw lumière lampe ndax à chaque fois comme li ñuy wax rek mooy bio bi toujours dañ koy bàyyi xel ba si machine bi nga xam ne moom moo koy wol armignon la ci lañ koy transformé wol ko ba pare ne def ko poudre doot ko daal di def cheche di ko jaay macha allah waaw waaw comme fi ñu nekkoon sànq foofu la ñuy weeree xob yi bu ko raxasee nettoyé ko ba pare foofu la ñu koy weer ba mu wow bu woowee ba pare fii moom mooy machine arminion bi nga xam te ne moom laa la doon wax sànq fi ñëwee na fii lañ koy woolee ba mokk dañ koy woo ba dañ koy wool ba trois fois mu mun a nooy ndax poudre bu nga soxla nga mun koo jot buñ ko wolee ba pare tame yaa ngi ni mu jël tame daal di ko tamewaat ndax mu gën a euh, euh, qualité bi nga ko soxla ba pare foog nga tame ko nga mun nga ko nga mun koo am waaw mooy poudre bi suñ ko wolee ba pare nag fii lañ machine bi lañ koy wolee suñ paree daal ko tame mbuuse ko def ko ay siwo nga xam te ne ngelaw du si dugg parce que ngelaw bu si duggee rek def ko yàq de yàq poudre bi. a taxaw foofu euh, ñu ngi fay jiine kaane salaat fan yëpp dindi soble bi nga xam te ne moom la ñu fi jiwoon mu doonoon soble bu rafet lool macha allah mu ngi fiy bàyyi kanje ak leneen ak leneen loo xam te ne moom lépp ci agriculture ci la bokk. waaw fi ngeen gis ni ñu taxoon ni sànq ñu ngi woon ci toolu moringa bi jóge nañ ci toolu moringa bi daal di ñëw ci fi nga xam ne moom mooy toolu maraîchage bi fii nag euh, bay nañ fi lu mel ni kaane euh, bay nañ fi salade bay nañ fi naana bay nañ fi kanje ak garab yi nga xam te ne moom la fi sëriñ bi def euh, difi fi sànq yeneen gis na comme ni ma leen wax bayoon nañ fi soble nga xam te ne recherché nañ ko ba jaay nañ ko ndax ci loolu li nga xamante ne moom moom la ñuy yëngatu mooy tool li nga xamante ne moom ngeen di fi gis suñu gannaaw ni lii yëpp li nga xamante ne moom moo fi nekk nag ñu ñi ñoon ñoo ko fi def ndax seri mi moom moo ko ji jëmbat ko fii lépp loo fi gis lu nga xamante ne dañ ko fi jëmbat na mu sax la ba mag mu tollu nii waaw macha allah. comme ni ma la ko waxee rek euh, jot nañoo jaar fee fi nga xamante ne moom lañu defee transformation euh, maraîchage bi ak nga xamante ne foofu la ñuy yaree jën yi ak fi nga xamante ne moom la ñuy def moringa waxoon naa ne lépp ci la ñuy nekk xam te ne <laughs> sëriñ bi dafa dajale lépp fii moom mooy fi ñu yaree élevage yi xar yi xar yi nga xam ne tey instant mu ngi ni macha allah jox nañ leen lekk ba suur nga xam te ay doomu daara ji ñoom ñoo nekk di ko toppatoo ñoo nekk di ko gérer fas yaa ngi fee nga xam ne ñoo fi nekk jur jël nga nag yi nga xam moom nga bàyyi sànq sa gannaaw nag yooyu yëpp ñoom xam ne doomu daara ji ñoom ñoo nekk di ko gérer euh, ci transformation yi nga xam ne tey élevage la fii ci biir daara ji Euh, ah, parce que ren la ñuy commencé yaru jën yi parce que ren la den jën doog a ñëw parce liggéey bi ba mu fi nekk ak léegi mën a deux ans waa Provar ñoom ñoo ko fi indi nekkoon partenaire fii ci biir kër gi ñu jàppalante ak sëriñ bi ba li yëpp mën fii taxaw comme ni ma la ko waxee sànq bañ demee si ñebedaay bi jógee foofu dem si fi nga xam ne moom la maraîchage bi nekk fi nga xam ne moom lañ nekk moom lañ fi euh, yarekaay jën yi nekk xam te yi bañ fi ñëwee ñu ngi commencé màgg mooy mi nga xam ne bassin yi nga xam te ne moom moom ngay ni sama gannaaw jën yi euh, pro man ñoom dañ dañ koy jënd ci fi nga xam te ne waa Proval am na yi nga xam ne ñoom ñoo ko fi jëkkoon na indi waaye mujj si sëriñ ci boppam moo jël xaalisam jëndaat yeneen jën nga xam ne moom la ñu essayé moom la xaar ni moom la ñuy produit ni te matugut waaw non waaw ñu yaakaar si fii ak deux mois ci kanam Euh, la ñu yaakaar production incha allah dina am waaw parce que nag euh, même foire baa ngi ne si sa kanam nga xam te ne jën mi bu mate sax te amaguñ fu ñu ko yóbbu si foire bi lañ koy yóbbu daal di ko fo euh, kii def lépp a ngi fii si biir daara ji allah waaw waaw ku nekk tamit am na li nga xam te ne moom nga réje comme nu ma la wax rek moringa bi maraîchage bi élevage bi ba forma transformation yi nga xamante ne lépp moo fi noonu ba si euh, transformation céréale yépp am na fi même jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk si daara ji ku nekk am na loo xamante ne moom nga occupé taxul tamit yàkkalu la say jàng ndax boo xëyee da ngay jàng boo wàccee ngoon nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo mën ñooy def sport ñu dem defi sport ñi nga xamante ne ñoo ñoo gérer euh, mooy li tool yi ñoom ñoo continuer seen liggéey macha ah, alhamdulilah waaw kon mooy sant yàlla bu baax rek di la gërëm di la ñaanal yàlla fi nga bëgg a àgg yàlla yàlla àgg fa site bi yàlla na ko jotal ñëpp ndax gis nañ li nga xam te ne moom mooy liggéey ju rafet nga xam ne moom ngeen ni liggéey macha allah lu même nii rek ñoo mën a génne liggéey nit mun nga nekk sa roq du liggéey te fekk du feeñ waaye nag yàlla ba mu boole ak yan ndax mosu nañ koo def mu rafet lool mu yaatu lool liggéey bi avancé lool moo tax ba nga dikkaade dañ ciy kontaan la ñaanal yàlla bu baax a baax jërëjëf عليك صلاة الله ثم السلام فطرها